ak lii ñuy def nii amul at mu ñu ko mës a def te ànduñu ko moom kàddu yi ma yëkkati nag fas yéene wax ci Alaaji Basiru Jaañ moom moo ma ko dàq foofu sa pap Baye si nii Baye Bas la ko daan woo réew mi yëngu mu woo ko ne ko kaay toogal woo Baye Mor waa nangam gars yi ne nangam mu ne nangam ñu ne nàngam nàngam ñu ne nangam góor gi doog a génn wax Baye Seydi Sarr mi toog laa laafa bu simple bii sëriñ bi yàlla yàlla guddal sa fan bàyyi la ak ñun. ñun sëriñ Mor lañ lay xoole nga woyof lool baax lool fu la yëkkatee nga jóg loo dégg ci soxlay njaboot gi ni nga téye woon sëriñ Mor bi mu wanee ginnaaw da nga koo gën a téye njaboot gi ñu seede ko man tey su ma sañee wéetal Rose Diagne yàlla ak sa jëmmat jërëjëf Alassane may souhaiter joyeux anniversaire joyeux anniversaire waaw def leen nii waay sama mag sama baay sama xarit Seydi Maam Libaas mu baax mu yow mi mu sunu maam Ibrahima si ànd ak rakkam sama koppe waaw sama koppe Serigne du Ndiaye moom ñëpp dañ ma ko séddee loolu la yàlla dogal mu may toggaloo ay añ rek te ñëw saa yi chaque jour ma togg añ Serigne bi te du ñëw sang ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen taxawaay wéetalu leen nu wéetalu leen nu lii sunu sag la euh, Serigne Ibou Séné waaw ngeen baal ma li may wax moo ëpp solo rek waaye su ma xoolul fii damay bañ a fattu te bés yu mel nii boo fattoo am na lu muy jur hmm? moo tax da ngeen may baal rek sëriñ bi maag yow ca ba ngay woy di woyal sa baay Ousseynou Laye loolu yàgg na de boobu boobu diine ji demeewul nii de <laughs> nii laa toll bàyyi góor génn àdduna bu ñëwee naan Chérif bàyyi te ngaa bàyyi ma ba setal la sama loxo yi tëdd yi Chérif naan yi bu seenee neex man bàyyi Ousseynou Laye ma yar ci keppaaram laa yar ñëpp dañ foogoon ne may taawu Ousseynou Laye bu après jotaan daf may niroole lii rek di ma fab di uuf ci kawam Pape Samba man dencu mag ñi laa na ma gars xool nii te bàyyi ma nii su ma neexee du ma takk gàllaaj na ma àdduna yëpp di móolu tiituma ragaluma ci kanamu bàyyi Seydi Sarr mii la sam mbokk ñëw di wax si Abdou Diouf coup d'état bu ñuy waajal ñoom sëriñ si di ñëw di wax si Bayraan coup d'état bu ñuy waajal ñoom sëriñ si di ko wax si Bayraan ñu yegg si mu ne ma nuyul sa papa te nga génn rek Bayraan aaw li ma wax bàyyi say dee ko fekkee ne ko de ko bàyyi muy fekkee kii mooy doon sa séede ëllëg dee ko bàyyi muy fekkee ma toog ñu waxtaan ma fekkee ko ca booba la góor gi tàmbalee lii bàyyi na Njaay doon wax ca waxi Bayraan boobu moo ma may fu góor gi jëm ànd ak man bu ñuy dem président sax buy seeti Abdou juuf laa wax téye ci sama loxo indi su ma yegsee mu ne ma ñaanalal sa pap bi may mokkal laxa jaakum sëriñ bi bés bu tàkkusaan boobu góor gi li mu ma récompensé mooy kañ dem ma yóbbu la nga seet Abdou Diouf ñu ñëw mu ne ma ñaanalal sa pap na ko dafa mokkal saal bu bees laxa jaakum tàllal sa loxo mu ñaanal ko man mag ñey sama copain dinaa koy faral di wax réew mi amatuma fi maam ay bàyyi laa fi am doomi mag laa bu kenn samay at te mag mi ma jur fa tabaarakallaahu axsanal xaalixiin tàggat na ma ba mu mën a ànd ak mag ñi kon loolu sant yàlla la bàkkuwuma nag ndax moom ndamuwuma damay sant yàlla kaar fa tabaarakallaahu sëriñ bi lu mel nii jafe na ci bés bu mel nii 25 mars tey la sëriñ Babacar Si ku ne làng boo demee zone bi ña nga woote Fatou Mbaye ku nekk woote ku ne waaye boo xoolee lii ba heure bi kenn jógul sëriñ bi bâche yi li ma ko luwee seer na lool waaw waaw li ma ko luwee seer na lool cere jaral na ma ko waaye nit ñi kenn mënu leen a loué sëriñ bi allah xam tax nga yëkkati leen ñu jóg da am ak ñoom diggante bu tax nga yëkkati leen ñu jóg man nag sama diggante sama jëmm ju xeebu ji nga xamante ne dew ma fenn seetiwu ma kenn ku ma woo téléphone sax doo ma jot indiwu ma fi kenn xam nga lu fi nit ñi bàyyi laa ji Basiru Jaañ bu baax damay waaj a woote tàkkusaan يا يا وارث القطب أقمامم xam nga xam nga waa kër Mame Moussa la tey dañoo tardé il fallait que ñu def tabaarakallah li am solo te ma koy wax mooy Alaaji Seydou Nourou Diagne mu baax mille deux pièces am bu simple bii ci kàddoom lay waxee ñi fi ñëw moom lañu wuyu si ci turam laa wootee kon rek gi ni ñu am ak Alaaji Bassirou Diagne nag moo fi indi nit ñi man sama kàddu dañ ma ne naa waxtaanee góor gi du ma ko def kàdduy ngërëm ak cant laay yëkki sëriñ bi maa ngi jiital sama ngërëm ak cant suñu bàyyi sëriñ Mountakha Mbacké ci guddi la mu yónnee teraanga ju bëri soxna baa di teg ci teraanga ju bëri joo xamante ne macha allahu rabbul alamin bés na bés bi sama jëmm ju xeebu ji su ma demee ba bàyyi sëriñ Mountakha di ma xalaat sante naa ko yàlla sante naa ko yàlla maa ngi gërëm le président de la république Macky Sall di sama mag di sama xarit xam ne ah mënumaa wax si moom sax parce que dama nekk homme politique su ma waxee dañuy jàpp ne politique moo tax mais ak moom du politique mag ak rakk la problème dafa xew fii ci dëkk bi man ragal ma man ragal ma am ci problème dafa xew fii ci dëkk bi président Macky Sall ak Abdoulaye Wade kenn ñemewul wax bàyyi bas di taal otoom guddi di fa dem ñuy ànd maa ko fekkee kenn nett ku wax ne fekkee nga ko nag xëj na daf ca daan dem te ànduma ak moom waaye man ak moom ñoo daan taal oto guddi dem seeti Macky Sall ñëpp daaw ko mook président mook président mook moom ba lépp sedd ba ni mu jëlee réew mi macha allah président ne moom li ko gën a metti mooy bi mu jël réew mi fekk fi sama bopp jàpp njabootu Bassirou Diagne gi lu mu waroon a defal sa bopp mi ngi koy defal Pape Diagne te genn golo gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko te famille koo président daf ñuy nemmeeku di yónnee ci ñu ndaw di ñu teral as gor bu rus tàllal loxo ñu teg ca warut a rus a gërëm ka ca teg kon président Macky Sall maa ngi koy gërëm di gërëm gouvernement du ma gërëm ku ma defalul dara nag maa ngi gërëm la ministre Antoine Diome ministre de l' intérieur moom it biig ci guddi la ma yónnee ndaw taxawuma ci bés bi sëriñ bi man wayaanuma de 4 millions laa teg doo ko songu bés bi barke Seydina Limamou. lii moo fi daaj yëpp paquetu million la mi ngi nii barke Seydina Limaamu subhaana du ma yalwaan di saraxe ci politique laay yalwaan di saraxe waaye bàyyi laa ji Basiru Jaañ jaral na maa bañ a lekk atum lëmm di dajal lu ma am ma def ko ci su may takk jabar takk naa jabar yëgulu ma ko kenn su may ngénte baal naa ñëpp bés bii laa am ku ma ci wuyu ma jàpp la ku ma ci wuyuwul jàpp ma la maa ngi gërëm Médina yëpp gouvernement président Macky Sall mënu ma koo tudd ba jeexal te waxuma ki ci sama bunt nga xam ne président moom la ma booleel muy sama mag di ab sumbaar di sunu mbokk muy la ministre Seydou Guèye falaw bunta falaw yoon man mooy sama yoon Seydou dina woo président paas ma ko téléphone man Seydou dinaa soxla président léegi yóbbante ko ci moom balaa tàkkusaan mu wax ko te Pape Samba nit kenn du ko lekk kenn du ko naan njëriñ rek lañ koy doyee du dëgg maa ngi gërëm Amadou Ba sama magu bopp ministre Amadou Ba moom it yónnee na ma teraanga ju bëri fa tabaarakallah ah di gërëm nag Medina yëpp waa kër Bamba ngi fii waa kër Seydou Guèye ngi fii waa kër Cheikh Ba ngi fii waa mouvement taxawa ngi fi ñëpp ñëpp ñiy politique sama nawle yi may politique ndool Medina yëpp ñu ngi fi daje bu jafe laa am mooy am na ay tet yoo xamante ne leer na ma ne bu dul man dinañ gëj a daje ci terrain bi kon maa ngi gërëm ñëpp ngërëmu Bamba Fall nag ndax moo fi jiitu moom tey ci suba indil ma teraanga moom itamit xamal ma ne dafa am séminaire bu mu jëm maa ngi koy teg ci loxo ma Thiam mii di adjointe am te adjointe au maire Médina di sunu sac ndax Gibraltar la dëkk bu ko joxee cëru adjointe au maire te man ma dëkk Gibraltar sunu sac la waaye ngeen mayoo ma taxaw ci kii toog di honorable député nday Dieynaba Ndiaye kii maak moom du ñu ñaari jëmm kenn lañ su ma jooyee day jooy su ma reetaanee mu reetaan su ma kontaanee mu kontaan Pape Samba boo bëggee mu bëgg la ngeen nekk xarit wan ko ne sama xarit nga soo leen bëggee noonoo rek wan ko ne sama noonu nga mu téye la noonu kon nag sama diggante ak yow du ma ci wax dara damay ñaan yàlla sàmmal ma àtte moom lay ñaan aji mu jigéen njaay jërëjëf yow góor gi la defoon doomu boppam di fab tànkam di ñëw sa kër di la seet Rose Diagne la ko daan defal ak ñoom may mun a kan ak ñii góor gi du dem fenn waaye yow da daan tàggatam ñëw sa kër set si soo amee tàkkusaan mu sol mbubbam ñëw nga jàpp ko jàpp njabootam yàgg loo am kon ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa taxawaay ah sama mag alxaaji Diallo Diagne moo yegg si dégg dimbali ma utal ko fu mu toog Diallo jërëjëf kontaan naa ci sa taxawaay bismillah su ko defee maa ngi gërëm njabootu alxaaji Basiru Diagne gépp ngërëm li dama koy jël teg ko ci loxo soxna Rose mu na ba ak ñoo fi nekk su ko defee nga jël ko yóbbanteel ma ko Awa Njaay ak Ayda Njaay ca Côte d'Ivoire di ñaan yàlla may leen ndam suba ci bés bi ñu dëkk ma ne incha allah waaye nag tàkk yi boo gis am na jàppoon ma diw man ku ne xam na ne Gambien la am déet petit man xam nga Gambien la yow moom sa bés wóor ma tañ nga Gambie <laughs> Aminata Savage Fall sama yaay sama mag nga xamante ne su ma yegsee Gàmbi damay mel ni maa ngi Sénégal wala ma gën a nekk à l'aise sax Sénégal su ma soxlaa million ci bëccëg bi bu ma ko waxee balaa ngoon mu génne jox ma ko jóge ba Gàmbi te bi mu jógee si appel bi yàggul Omar laay wax na ko ne ma boo wootee lii génn ko ci mbedd mi lu ma jàppoon dina ko bàyyi ñëw looloo waral teewaayam ànd ak ajaratu Faaj Jaay indaaleel ma teraanga yu bëri moom ak waa Gàmbi yëpp mënumaa sant gërëm te gërëm ma sunu ay mbokki bopp sama ndéegu ndey Adja Fat Sow ci suba la fi woote tànday saw nga xam ne moom sunu mag la boobu ba tey mi ngi ànd ak ñun liggéey beeg ñoom taaramaag euh, grand chance ñu ngi lay yóbbante nuyoo ci sunu yaay jaxu nga seetal ma ko bu baax a baax soxna Rose ah man de xam nga ne du ma ne kenn yàlla ngi lay nuyu te ko waaye jaañ dafa jot li ngay dund ñun ci biir néeg ñu weer ko àddina xam ko man bàyyi moo dafa ma tiital ndax bi mu génnee àddina ci laa dund ñàkk bàyyi bi sama yaay génnee àddina nag garaawul ndax soxna Rose bi kon soxna Rose ñu lay ñaanal yàlla nga gudd fan yàlla gën a yaatal sa xol day ñoom bu ko ba mu yegg awa jaañ war a génn mu yëkkati jox ko daf may xool man mii nan man sa moustache yi nii mu mel nag sa yére bi lii ndax lekk nga loolu la yaay di defal doon te soxna Rose taxawaay boobu la am si képp ku fi teew nag muy waa Medina di sama ay xaritu bopp nga xam ne maa jël sama tànk dem seeti leen yëgal leen xew ñii ma yónnee leen carte invitation ñi ma ci wuyu si amul kenn ku ma ci xàmmeewul kenn kenn ñii may xool ñi ñëpp xàmmee naa leen di leen sant di leen gërëm mais di beral ngërëm nag mention spéciale Jeewa jeewo moo noppal jeewo moo noppal ruus ci événement bi Omar Laye jeewo moo ñëw taxaw taxawaay bu rafet ñëw fekk ma ma gaare sama oto mu ne ma doo ko dawal sama oto ngay daw ñëw fekk ma ma teg sama programme mu ne ma nii lañ ci àndee jóg ñii toog fii ñëpp moo leen fi indi ñu ñëw wuyu si ko ndax bés bi bés walla ji Basirou jaañ la te jay na ko doomu Basirou Diagne la xam nga bas jur na ay doom mais dafa am ay doom ci biir doom yi mën naa seede ne jeewa doom la ci biir doom yi ni ma mënee seede ne may mun a kan mii toog ñu bokk ndey ak baay sam papa lu jiitu muy génn àddina woo ma ba mu ñëw dénk ma ko woo ko ba mu ñëw dénk mu ko nim ma wóoree ne doomu bas la woon ci biir doom yi waaw noonu laa mën a seedee ne jeewo yi tamit doomu bas la ci biir doom yi bàyyi laa ji njaag Fall boo yëgee nga gërëmu ñu colonel santal ko wax ko ne ko bu jey na ba xiifoon wala mu rafle maa koy njëkk yëg ndax sam papa man la ko dénk ci ay rongañ la ma ko dénkee fekk ko muy jooy mu ne ma Mohamed jay na ba mii man ne ko waaw mu ne ma dénk naa la su ma dundee ak suma ma deewee yaay kilifa jeew tëb ne ko sama kilifa man kii di sama lakk mu ne ko li ma lay wax ci kanam nga koy gis egg nañu ci tey mën naa wax ci turu colonel Fall mën naa wax ci sa tur yóbbaale la géew ndax waxtu bi xat na te sëriñ bi wax dëgg yàlla am na yeneen programme yu koy xaar ndax xam naa programme moom xam naa fu mu toll waaye Pape Samba dama bëgg suma ma rek moom mii ñu may ko mu yëkkati ñaari kàddu rek euh, incha allahu rabbi kàddu yu gàtt lay doon rek sëriñ bi ndax borom këru jeewoo moo ko yebal ay kàddu moo waroon a ñëwal boppam yàlla def mu am gàllankoor Alaaji Basiru Jaañ nag ndaw lu guddi la ku làmb da ngay foog ni yaa ci sa bopp du dëgg soxna Kiné Diouf mu baax mii bu toogee di wax dangay ngay jàpp ne moom moo ëppale ñépp cër ci Alaaji Basiru Jaañ ndax du yam ci wax day wax ba wan la preuve dégg ko dëj mu ñëw ci dëj bi mu jóg di ko seetaani ba fakkastalu léegi bi dafa ma koy wan muy ko dëkk ci biir kër gi di ko bëgg yonent yàlla Muhammad sëriñ bi man damay toog rek mu ñëw ay mbubb yónneen léeg-léeg ma jàdd ziar ko rek looloo tax nag dematuma fa ndax saa yu ma demee ziyaare ko rek sëriñ bi mu lam enveloppe ut ay parfum ut ay mbir jox ma ku baax a ngi nii sëriñ bi ku bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam soxna loo mën ren yàlla na nga mën déwén lu ko ëpp loo allah loo loo loo jurëk euh, yàlla na barkeel may mën a digal ñoo bokk mel na maam bés bii bés bokkoo ko kenn ñëw sagal si ñu ci gunge ñu si wéttali ñu si ñu ngi lay sant di la gërëm sama waa kër Pape Amady Samb wañ léegi lañu fi jóge ñoom kan gi xaar nit ñaa ngi jaabante kenn desul bàjjen Tamsir ñu ngi lay gërëm bu baax yow doomu Baye Bass ndax bokkoon nga ci ñi góor gi dugaloon ci bilan wu boppam daan mu yónni sa kër saa su nekk. saa su nekk euh, dafa am nag lu sell sama xol muy teewaay muy mun a kan mii dama xam ne nit la koo xamante ne du tricher li mu def nii bu ko gëmul woon du ko def toogaayam bii tricher taxul su ko gëmul woon du ko def dina ma woo guddi dina ma woo bëccëg dina ma nemmeeku dina ma toggal dina xool ndax xiif naa man ak moom ñoo bokk ndey ak bàyyi Alaaji Diallo maa ngi kontaan lool ndax mënumaa wax may mën a tudd mën a ndax mooy sa séex bañ na ko ba Serigne Mansour bi mu yóbboo may mën a màkk dafa wëlbati ko jox la paas màkk kon ma jon gi foofu sant la gërëm la ci sa teewaay ndax man maa war a déplacé wu ñëw yéenay samay mag maa war a déplacé wu ñëw kon boo defee nii sama xol sedd na presse bi di leen di gërëm di leen sant ñuy takk rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam a tardé te papa Thier fu nu ma gis ci ndakaaru petit lay àndal loolu jaaxalu la. te man du ma am xew mukk ba njëkk gis petit loolu jaaxalu la petit déedéet ñun dañoo wàcce kaamil añee fi fa tabaarakallaahu tagg fi yonent bi ba ngoon jot ñuy doog a tàkkusaan nag di julleeg di laasim xa xamoo li xew petit petit petit petit petit dàgg seen ma déglu ma rek dama ne ñuy tagg yonent bi seen ngërëm ci sa loxo laa koy teg naam yaa fi mujj nga joxal ma ko Makumba joxal ma ko Moustapha Mbaye joxal ma ko Aline Fall joxal ma ko ñi fi ñëw ñëpp man nag sëriñ bi aw ma lu dul yonent bi sa maam dong laa bëgg ku ma la wax ne la bëgg naa ko Rasulullaah waxuma dëgg boo ma tegalee billet Amérique ak war a gis président baak un milliard nga tegal ma billet umra spécial yoon kese nii rek Pape Samba ma dem siyaare ji Rasulullaah ndax moom damay ñaan damay ñaan damay ñaan xoolal xam nga xam nga nag gis nga man du ma tagg kuy du ma du ma dog kuy dagg yonent bi du ma ko def mais maak yéen wàccoo nañ ku ci ne déglu naa la nga tagg yonent bi xam nga fi mu ne lu fi des mooy ñu am yar déglu sëriñ bu séeni dama bëgg bu jëlee bu ko kenn dagg bu waxee sëriñ Touba bu ko kenn dagg bu waxee alaaji Malick bu ko kenn dagg kii moo ma yar xam naa ko mun naa bëmbastër mbir mi def ko petit bu saf taj taj 442 bu gaaw ku ne gis ci sa bopp ñu bég mu waxtaanee yonent bi ñu kontaan Alassane ñu ngi lay ñaanal yàlla defal la ubbee ku fi teew ren yàlla na fi teewaat déwén